Bonjour tout le monde, comme vous le voyez, le, la caravane va vient d'arriver à Thiès. Donc là, vous voyez le courant qui porte les maillots verts, jaunes et rouges. Vraiment, monsieur le maire, ça euh, le climat. Donc la, la, caravane est très contente d'être là aujourd'hui à Thiès. Je vois la présence de monsieur le maire dans euh, le là. duñ def leen loolu di sant yàlla wér di jur seen di sant suñu ñaari waajur di sant sama papa bu baax a baax di sant sama ay waajur waaw tur bi dañuy sant yàlla nagam daw nañ ko si bismillahi rahmaani rahim pare si alhamdulilah rabbil alamin kon sant yàlla moo ñu war duñ def leen lu di sant waa kees boobaab dirigeant yeeg kuréel yeeg ñëpp di leen sant bu baax baax parce que li ñu def di dañoo bëgg vélo Sénégal jëm jëm jëm kanam parce que sport dafa bokk si sport yëpp dafa sport vélo dafa nekk sport complet moo tax daal lu ñu def leen lu sant leen di sant sama équipe di sant waa équipe bu kees di sant waa équipe bu ak sama équipe di waa di waa waaw di sant ñëpp daal bañ pare si si si alhamdulilah rabbil alamin waaw c'est que nag <laughs> xam naa technique bi moom moo des si yeneen gaay daal mais xëy na déwén mën na mën na mën na demee ne leen bu ñu gën a liggéey daal gën a yokk entraînement yi ñoom mën nañu jël place bi ma bi ma jël tey parce que sport moom du leen lu dul entraînement donc donc entraînement respecté entraînement daal moom boo ko defee. moom lépp loo bëgg si espoir moom di nga ko am waaw. waaw wër Sénégal métti na lool ndax euh, ndimbu lañ ci am barewul waaye bi di jógee fii sax di dem gaa xaalis yëpp matul woon mais couleur yi comme ñun ñëpp ñoo bokk club bi comme ñun ñëpp ku ci nekk da nga da nga cee gis sa bopp. ñu ne nag ku nekk li la yàlla may na nga ko joxe bu dee sa doole la bu dee sa xam-xam la bu dee astuto yàlla may la ku ne indi li nga am gars yi àndandoo dem métti woon na lool yoon bi taroon na trop ndax am na municipalité yoo xam ne sax waxuñu ñu dara. waaye ñun ñëpp ñu àndandoo doole mbooloo mooy doole ñu ñëpp ñu boole suñu doole yàlla dimbalu ñu tey ñu am ndam lu rëy lii. ah man loolu la yàlla mais ñun daal bu soobee yàlla loolu duñ ci xaar kenn ndax euh, fédération ñu ngi leen taral suñu loxo di leen wax nañ ñëw ñu liggéeyandoo parce que Thiès Baobab am na détermination am na pas-pas am na gëm-gëm ni vélo dina dem ndax euh, ci mois de mais bi rek bu soobee yàlla ñu ñu waaj invité France pour suñu ay kuréel ñii. jóge fii Sénégal dem pale ji France loolu rek maanaam jéego bu réy la ci cyclisme sénégalais dañoo ñaan yàlla ñu liggéey ak fédération liggéey suñuy partenaire ñu jàppale ñu comme euh, Abdoulaye Dièye ñu jàppale tey comme waa Sokosim comme Maître Ousmane Ngom comme euh, Celoplast comme SR Énergie ñu jàppale ñu te xam ni vélo Sénégal mën gëm naa dina dem kanam te bu ñu travaillé la main dans la bu soobee dañ dina ci dina ci egg jërëjëf. sentiment bi ñu am rek mooy sentiment mbégte kontaan ndax bu gisee ay jeunes de Thiès am initiative bu mel nii. lii dafa nekk surtout maa nag ñu boole ci les jeunes gambiens ñu xool Sénégal ak nu mel Gambie lu mel ni suñu ñëwee ñu ñu nekk jeune entrepreneur dëkk Thiès am société di liggéey pour Thiès de parce que yoon la ñuy ñëw aussi bu ñu gisee suñuy rakk wala suñuy moroom ñu taxaw pour développement Thiès ñu ñëw def suñu contribution kontaan nañ ci su fekkee ñu boole ñu si troisième édition bi ñu des on est très content te leneen lu amit lu mel nii dinañ ci defaat suñu participation ndax Thiès moo nu ñor Thiès la ñu gëm moom la ñu bëgg ñu taxaw nag ànd ak Cheikh Kanté aussi pour comme ni ko président waxee émergence one est des jeunes kon le contexte est favorable euh, ñu wane ñu ñun on est émergent on est émergent nag il faut participer nag aux activités culturelles et sportives pays ou bien de local et loolu moo tax ñu ñëw kontaan ci loolu ci teewaay bi. lan moo doon troisième ah on fera tout rek li ñu def ren bu déwénee bëgg nañ def lu ko waaw ba ñëpp gis ni def nañ lu baax baax parce que li dafa nekk lu nu bett sax mais incha allah bu déwénee dinañ gis leneen waaw. jënd nañ maye jënd nañ ay coupe participer nañu jox nañ ay enveloppe on a de choses mais xeeb nañ ko xeeb nañ ko quoi. on l'a fait aussi tamit si yeneen couleurs yi nekk Thiès yëpp lu jëm ci sport taxaw nañ fa nun fa war a taxawee si ASC yi si ODCAV beeg tout le monde taxaw nañ ci lu nu war a defee ñoo ngi koy def pour li nga xam ni moo ngi ji avancé sport Thiès union daal jàppale nañ leen aussi parce que lu nu war la daal ñoom moom suñu dëkk Thiès ñoo ko moom Sénégal aussi suñu dëkk la doon war a participer waaw képp kuy nekk seen euh, entrepreneur un jeune entrepreneur bu nekk Thiès wala képp koo xam ne war na yor entreprise sa dëkk wala bëgg nga sa avancé da nga war a def ñëw participer si dëkk bi def la nga war a def li président il la appelé à tout le monde pour ñu jàppale ko kon ñun ñoo war a njëkk a jóg jàppale suñu dëkk suñu bopp lañ jàppale daal waaw. Ah, on fait appel à ñoom ñëpp ñi nga xam ñoom ñëpp ñi nga xam tey yàlla may na leen teraanga ñoom ñi nga ñëpp xam ni fii leen jaar Thiès ba tekki ba yàlla may leen teraanga danoo war a ñëw participer on fait appel à tout le monde ñu ñëw participer si waaw surtout les Thiessois. loolu mooy taxawu Abdoulaye Dieye. waaw mooy taxawu Abdoulaye Dieye waaw.